bi dox ci ndimbal ak yërmande te jëm yàlla rek tax di jaajëfal képp koo xamante ni doomu aadama nga moo xam nga nekk ci biir réew mi moo xam nga nekk ci bitim réew waaye saa su yàlla dogalee ñu gis suñu moromu jaam bu yàlla suñu borom teg ay nattu mu am yaakaar ci yàlla am ko ci yéen am internet yi saa suñu dugalee vidéo daal ngeen jàppale ñu ci tàbbal seen ñàkk te jëm yàlla rek tax yàlla mi tax ngeen di jëf yàlla gis na seen i jëf te dina leen fay yàlla mi am fay yàlla na leen yàlla suñu borom fayal boppam ci jamono bi ngeen gis bay Sooru wax deug yalla di def video tay bo xamni ne xale bii ma togal yaakar yalla yaakar len yeen ami internet yi moko taxa baye ko ba Mboro gis ngeen ko Mboro ak ni mu sore waye beug wer ak yaakar len yeen ami internet yi ginaaw yalla mo tax gis ngeen ko mu and ak kenn ci ay dëkkandoom joge ko Mboro ñew ba Dakar fi ci suñu siège ngir ñu boole ko ak ami internet yi ñu taxawu ko te jëm yàlla rek tax moom mii day su ngeen ko gisee di ngeen xam ne li tax mu ñëw dakaar mooy wax na waxal na boppam ne yaayam day jigéen la waaye néew ji doole la moom xale bi waxal na boppam ni su fekkoonte ni bi ko lii di door a dal yaayam mënoon na ko amaana kon heure bi tawat bi du yegg si fii gis ngeen ko tànkam bi ñu leen di bëgg woon du lu mu judduwaale xale la jigéen la ay atam bareegul waaye nag muy dund su france ci ay kàddoom sax mu wax ni tànk bi daal day faral di metti metti boo xam ne léeg-léeg sax day dox ba yàgg mu daanu su ngeen gisee tànk bi xam ni wax dëgg yàlla tànk la boo xam ne daal boroom donte ni mi ngi ciy sox di ci dox lu tax mu ciy sox di ci dox mooy nekk doom ci koo xam ne néew doole la nekk doom ci koo xam ne way tumranke la te ku nekk xam na Sénégal li fi nekk am na loo xam ne ku mu génn ci sa poos boo ko amee mën ko sax mu feeñ ci yow rawatina koo xam ne da ngay jóg ak a daanu mu mel ni moom xale bi daal yéen ami internet yi yéen la yaakaar maa ngi sakku ci képp koo xamante ni seetaan nga vidéo bi rawatina ñi nga xamante ni ñoo ñu topp ci TikTok bi maa ngi sakku ci yéen ñëpp ngeen partager vidéo bi àdduna yëpp jot ci ngir gaaw ñu taxawu ko moom xale bi dina len waxal bopam li tax mu yaakar yalla yaakar len tax ko joge mboro ñew ba fi ci Dakar ñongi ñaan ci yalla suñu borom joge bi mu joge mboro ñew fi ci Dakar yaakar bi mu am ci yalla am ko ci yeen yalla bo yaakar bi tas yalla nañu yalla may ndam ci xalé bi ba ëllëg suñuy ko ak mom diko defal video mu doxal bopam wax alhamdullilah sant yalla wax ni bi may ñew Dakar de li taxone ma ñew Dakar yaakar gi ma amone yalla defal na ma ko mu am yalla mi ko am te mën ko yalla nañu ko yalla defal te boole ñok bon volonté yi ñu taxaw ko te jëm yalla rek tax di sakku ci képp ko xamanteni yaangi sétane video vidéo bi na nga woo sa njaboot taaj len ci kanam écran bi ñu sétane ko ngir yalla day man na ci doxé tabbal ci seen ay xol yërmande waye man nañoo jang ci aduna lu bare bare di fatale jam ñi ni dund gu lu nek xaj na ca mom xalé bi tank bi ñu leen won man na wër lan moy tax mu wër hôpital xamal nañ ko ni so amé ñu la jappalé so amé ñu la taxaw tank bi man nañ ko opérer ba nga doxat normal lol lay sakku ci ci yeen lol lañuy sakku ci ci yeen ñun tamit di leen talal loxo ci ndimbal ak yermande jëm ci xalé bi te jëm yàlla rek tax soxna si na nga def. noo tudd. mam jaar mam Diarra fan nga jóge ñëw fii. Touba. Touba ngeen jóge ñëw Mboro Daaru Xuddoos Mboro foofu ngeen nekk ci jamono bi. waaw. kan nga nekkal Daaru Xuddoos Mboro. sama yaay. tey lan nga ñu mën a wax ci li nga xamante ni moom moo la dal ci tànk bi sa tànk bi lan lan lan moo ko def nii saya ini pemainnya mana lah lamon modal mau buka apa mau ko mau fat ko ñu di ko facc ba yàgg amatul lu mu ko continuer di facc mu bàyyi ko nii moo tax tànk bi dem ni waaw tey lan la lay def nga nekk jigéen nekk xale sa yaay nekk néew doole ba pare tawat bu mel ni dal la dem ba def ni sa tànk bi ndax tànk bi dinay faral di metti tey lan ngay wax ñi nga xamante ni ñoo lay seetaan lan nga bëgg ku la ci jàppale te yàlla rekk tax xanaa ñu jàppale ma mu jub jàppale la ci tànk bi mu jub ndax hôpital wax nañ leen ni tànk bi soo amee ku la taxaw mën na wér. waaw. dañ laa wax ni da ngay war a def opération. waaw. mu mel ni ci jamono ci ginnaaw doon ngeen dem hôpitalu Thiès di dem ak ñëw ba am benn rajo boo xam ni moom nga war a def fan nga war a defee bi ban hôpital. Thiès. dégg ngeen ko hôpitalu Thiès fa la war a defee rajo bi wax deug yalla so degge sax ay kaddom ni mi waxe nga xam limi wax ci xolam la koy jele mom soxna jaara ma ngi wo ñepp ci ndimbal ak yermande ci ñu and taxaw ko mom bu so balé mi ci bëgg-bëggam gis ngeen ko tank bi tap la tambalé won yaay ji di dem hôpital di ñew dem ba amatul lu mu yobbu hôpital mu mujj tok gisumako mom yaayam waye wallahi azim ba bi ñuy ñëw dakaar fii wallahi azim paas bu leen jëlee Mboro indi leen dakaar sax amuñu ko ñuy sant bu baax a baax ki nga xamante ni moom moo ko jëlee mbooro indi ko dakaar daanaka mën nañ ni lu mat fukki fan ak juróom wala ñaar fukki fan musul sonn musul tàyyi lii la dëkkandoo di jëriñ lii la mbokk di jëriñ bu ngeen gisee ki nga xamante ni moo indi xale bi moom it day jaamu yàlla dafa gis xale bi ci melokaan bi gis yaayam mu nekk néew ju doole mu am yërmande moom moo ñu contacter jooytuñu tawatu xale bi waaye boobu ba léegi donte ni ñu ngi toor door a gisante tey moom day wax dëgg yàlla saa su dem hôpital jotee nii ngeen ko gisee mu jëlee xale bi Mboro andi ko fii noonu lay jógee Mboro dem Thiès taxawu xale bi ordonnance yeeg rajo yeeg lu nekk donte ni buy dem yéene rek lay am waaye wallaay nazim du am sax lu mu jëndee ordonnance buñ ko ko bindalee waaye day yaakaar yàlla rek gàddu xale bi dem ngir bëgg koo sauver te yàlla rek tax mënoon na ni dëkkandoo rek la sama yoon nekku ci mënoon na ni mën naa mbokk la ci man waaye sama yoon nekku ci waaye billaahi wallahi maa ngi seereel yàlla ni leen moom mii ko indi tey téléphone mosul dakk ci duñu woo saa su nekk mi ngi ñuy woo di wax ni suñu sañoon fépp fu ñu waay woo ñun ñooy taal oto dem fekki la fa waaye comme niñ leen koy waxee léeg-léeg billaahi wallaahi taala dinañ ñu woo ci kaa boo xam ne essence bu ñu sol ci oto yi sax pour dem fekk ko fa mu nekk daf ñuy të billaahi lazi laa ilaaha illallah looloo tax képp ku ñu woo ñu yéex a ñëw donte ni am na ñoo xam ne dañ leen di wax rek ne leen ñu ngi ci yeneen kaa wala am na tournage wala am na yu ñuy def donte ni loolu am na waaye li ci ëpp jafe-jafe essence mooy tax lu ci bari duñ ko mën a def xa xool leen doomu aadama yi malade yaa ngi tëdd ba fuuta am na malade yu nekk ba Kédougou am na malade yu nekk ba Casamance te daf ñuy wóor ni ñun ñu déplacé wu dem fekki leen mooy gën a yomb fopp déplacé malade xool leen xale bi jóge mbooro coono bi mu daj di yéeg di wàcc biñ may woo di ma wax fi ñu jaar biñ may woo di ma wax fi ñu toll ba na ñuy yegsee ak bi ma séenee xale bi muy dox billaahi lazi laa ilaaha illallaah sama àdduna yëpp a tukki dama ne suma xamone ni ka bi ni la demé donte ni dañuy lepp njëgu essence wallahi dañuy lepp njëgu essence dem fekk ko waye mom duñu ñu fekk si deug yalla ñu diko ko masaw bu baaxa baax mom soxna jaara tay soxna jaara yaangi jang. wa lan ngay jang école wala arab alxuraan alxuraan ngay jang wa ndax man nga ñoo wax ñaata at nga am xaw ma samay xaw say at gis ngeen ko tay soxna jaara xale la avenir am ngi ci kanamam ma ngi wo ñëpp ci ndimbal ak yermane te jëm yalla rek tax ñu and sauver ki nga xamanteni modi mam di mam jaara dekk Mboro te yalla rek tax ana kan momay may wo a ne ma bay sawru jël mam maam jaara en charge ana kan moy njëkk taxaw mam jaara mi ci ñu te yalla tax ba mu dox bañu opéré tankam bi mu jup xoc mu bañ ci yëgati metit mu mëna jog di doxé ay soxlam comme ay moromam mam jaara ndax léeg leg fi nga dëkk xalé yi di ngay faral di and ak say moram di dem di foy wa bo and ak ñom di dem di foy mba duñ lay togn wala di la wax lu lay naxari déedéet duñ lay togn duñ lay wax dara tay lan la lay def nga nekk xalé gis say morom ñuy dox normal yow yàlla teel laa teg nattu tànk bi mel ni daal lu laago nan la lay def hmm? ndeysaan dañuy yëkkati kàddu gi jébbal ko ki nga xamante ni maa ngi sakku ci képp ku seetaan vidéo bi nag ñu ko ñaanalal moom exemple la royuwaay la billaahi wallaahi tallaahi lii mu def yombul bàyyi yitteem di taxawu koo xam ni dara dugalu ko ci lu dul jaamu yàlla comme ni ñu koy defee lu dul jaamu yàlla ci xale bi lu dul am yéene ñu sauver ko te jëm yàlla rek tax moom danañu ko laaj amaana sax lu ci baree baree bari moom moo koy gën a xam ndax ci jamono bi ñuy àddoo moom moo nekk foofu ci mbooro waaye moom mooy dem xale bi hôpital di ñëw ñu bayyi soxna jaara mu jog dox ñu xol tank bi ban handicap la koy def yalla bu baax comme niñ lan ko waxé won légui mom jëmuji nekk ku jara sant nekk ku jara gërëm nekk ku jara ñaanal waaye nekk ku jara bàyyi xel waaye nekk ku jara roy ci jëf ji nga xamante ni moom la jëf ci pas-pasam ak taxawaay bi danañu ko laaj moom ci wàll boppam mu waxal ñu boppam ndax lii mu def day yombatul ci jamono wallahi azim waaye yàlla mi ko tax a jóg yàlla mi tax muy def yàlla am na pay te yàlla gis na lépp yàlla na ko yàlla suñu borom fayal bopam noni ni lay sako ci yéen video seetaan bi ngeen ñaanal ko mom pas-pasam bi ak yéeneem bi ci xala bi yalla may ko ci ndam jeewrin ma ngi lay ah ma ngi lay fay ku bax ndax man nga ñoo fatali sa tour wa man Modou job la tuddu bay Modou job tay xala bi nga xamni mom nga jëlee Mboro andi ko fi ndax man nga ñoo wax salam wa xale bi euh, sama mbokk la. ndax euh, normalement jarbat la wara nek ci man wala sax ndax euh, yaayam kiko jur di papam ak sama yaay ñoo bok ndey ak bay euh, li nak daf ko dal bi mu nekké xalé mu manké moyen lol pour gor gor lu ba faju ci nek ci village euh, yu bare bare do koy téla xam mm-hmm. euh bi may wax nak manit ba indil moko ma xool ko du loo xam ni mi ngi ci sama poos parce que bu ci nekkoon ku jóg da ma ciy fekk euh, ndax am naa xol bi te de am naa décision yi pour def ko mais suñu borom bu dogalee euh, nekkul ci sama poos dama ko war a jooytu ba nit ñi dégg ko su ko nit ñi déggee d'abord euh, képp koo xam ni def ngir yàlla tax na laa jóg nga def ca la nga ca man ndax yaakaar naa ni lu mel nii fi mu dal ni muy metté ko xalé bu jigen bi non lay metté ñep ndax ko ande handicap du am te yalla koy tek kenn mu don lu mu wul taxit ma gën ci mëna a sawar pour japp ci pour yàlla ci ko mu dox ni mu wara doxé ndax mom euh day wax ni mais dañ may wax ay moroomam sax dañ koy reetaan doonte xalé la naan ko sa tank bi bo doxé day kalaj kalaj yi doonte xalé la mais sunu borom moom mooy doxale ni mu bëggee bi ma gëstoo tamit ba ñu orienté ma ci yéen war naa pour ñëw ci yéen ndax loo munul nga gis ku ni mën na ko demal ca kooka bu fekkee yaa ngi sëwe nit ki côté yoo xalaat ni war nga ca mën a jaar ba mu sëwe rek euh, doonatul yoon nga toog loolu daal moo ma pikir bi ma ko gisee ma ni daal kii il faut ma def lépp lu ma man Euh, ci sama doole li ma amul ci sama doole ma def ko ci sama xel ak samay xalaat ba yàlla jàppale ñu ci ba kii li nu ci bëgg mu mën a am mooy rekk mu dox ay soxlaam yaayam ku néew doole la euh, sësul ci kenn moo tax mu demee nii yéen it bi ñu joxee seen numéro ba néga ni lu baree baree bari euh, yéen yéen a ngi ci taxaw ci léppam kon ba léegi li ñuy gën a wax ndig ni ñi ngi leen di tàllal loxo ci lépp lu waay man pour ñu soutenir ko kii ba mu mën a dellu si di dox ay soxlaam ni mu ko bëggee daal wax dëgg yàlla euh, ñi ngi la ciy woo ndax tànk bi day metti euh, metti bi muy metti euh, da koy gêner des fois ñun dañ ciy xalaat yaayam di sonn yaayam bi ma ko indilee tamit xam naa bu yaayam ñibbiwaatee village day gën a dund ay jafe-jafe te comme ni mu nekkee xale nee nañu mën nañu koo faj nekkatul yoon ñu war a mën a am fu nu jaar di ñaan ay wàllu ba mu faju ñu tëdd di nelaw kon kenn ku nekk ci lii euh, yaa ngi ciy jaamu yàlla ki ko dégg jotali ko mi ngi ciy jaamu ki am dooleem def ko faj ko mi ngi ciy jaamu ki nga xam ne sax moom la xalaatam nekk ci mu jàppalewoon woon ko te te agsi sax euh, mi ngi ciy jaamu kon daal bay sawru loolu lañ mën a wax ci xale bi ci li ko dal di daal kon dal bay Sourou loolu lañ la mëna wax mu nek ay kaddu yu leer wallahi nasim di ko bu baax baax mom mi ginnaw ci jamono beulé mu melni commencé won nga traitement di dem hôpital bu chest ak di ñew tay fan nga ci tollu waaw yobuna ko Saint-Jean de Dieu euh, ñu xol ko li ñu jëk def moy ñu def traitement xol ko jëk ñoo prouver ni man nañu ko fajj waaye bi bind nañu ay rajo rajo yi defaguñu ko léegi mi daanaka ñu ngi toll ci point def rajo bala ñuy wax ne suba lañ koy opérer wala ginnaaw suba waaye daal am na ci avancement ndax li ñu doon yaakaar mooy ñu xalaat ni ndax danañ ko mën a faj wax nañu ni ñu dinañ ko mën a faj kon daal dafay mel ni moom bu amee fi mu nekk nii ñu ko jàppale faj mi moom dina dinañu ci nekk te yaakaar nañ ni yàlla dina dinañu ci may ndam waaye jot naa dem ay hôpital comme ni ñu ko doon yónnee ñu ciy dox euh, dem na defe ji première deuxième ba ñu bind yi ticket bi mu am Saint-Jean mi ngi nii mm-hmm. waaw bi mooy ticket bi mu jënd bi mooy ordonnance première bi nga xam ni moom la ñu joxe mm-hmm. rajo bi nekk euh, trente première rajo bi mi ngi nekk trente huit mille Euh, huit cent kon daal ñu xam ni foofu la ñu commencé euh, ne ci yoon wi di ñaan ku ñu soutenir rek ba ni ñu ko bëggee yàlla jàppale nu ñu amee ko noonu incha allah yàlla jàppale ñu ñu amee ko noonu ndax rajo bi ñu ko bindal ci trente huit mille cinq cent jot ngeen ko def wala ah déedéet jotaguñu ko def ndax euh, ñàkk moyen moo tax jotaguñu ko def kañ la waroon a def rajo bi waaw rajo bi normalement mi ngi ko waroon def mardi passé waaye ñàkk moyen moo tax defuñu ko mardi euh, man ni kon fii ba mardi bii di ñëw su ci yàlla dugalee doomu aadama yi jàpp ci ñu mën koo def continuer su yàlla dugalee doomu aadama yi ñu jàpp ci xam ngeen ni metti na xale bi tànkam bi ak ni mu mel ay way juróom nekk ñu néew doole rawatina yaayam moom nijaayam ji mu nekk di ci was lu ak waaye mardi la waroon a def rajo boo xam ne trente huit mille huit cent la wallahi azim ba tey jii di dimanche tey jii di altine suba lay am une semaine ba léegi defagu ko te tànk deful rajo bi mënul continuer li nga xamante ni moom mooy traitement yi ba keroog ñu koy wax jour tel lañ koy opeere waaye ñu ñaan yàlla sunu borom njëkk cee tàbbal suñu ñaq Talata la waron na def operation radio bi bu suba la talata insha allah rabbi bu suba dina def opera dina def radio bi ma dekk ci tabal sama ñak jaayante ko ak yalla bala nga dem dina la jox fukki junni te yalla rek tax ngir so delo mboro bu suba ngeen dem hôpital defal ko radio bi te yalla rek tax le temps que ñu xaar jaamu yalla yi te yalla rek tax ngir ñu sauver soxna jaara kay leen ñu and sauver soxna jaara de ngeen ne ko nijaayam waxe wax na ni hôpital xamal nañ ko ni ñak moyen rek mo tax tankam bi melni waye su amé ñuko ko taxaw tank bi mën nañ ko fajj defal ko opération ba mu jaarat ci yoon mëna dox normal dégg ngeen ni ko nijaayam waxe day and sax ak ay moromam ñu diko ré diko wax ne ko soy dox sa tank bi day kala kala gi gis ngeen ko moom xale bi wóor na ma ni am na lu muy souffrir ci biir xoram lu mu mënta wax kenn nekk xale di ànd ak say moroom ñu lay ñaawal dafay metti ci xol te du ko mën a wax kenn mbaadu loolu lay denc ci biir xolam bi tax ko gis ngeen ko mu mel ni man tuuti lool kaay leen ñu ànd sauver ko dalal xelam te yàlla rek tax maa ngi woo ki nga xamante ni moo di soxna Daba Touba Belal boutique di ci woo waa groupe def te yàlla tax nekk fële ci diwaanu Michigan ñoom soxna Ndeye faatu Diop Green si Boro maa ngi woo ñi nga xamante ni ñoo di groupe social def te yàlla tax foofu ci diwaanu Espagne di woo waa groupe def te yàlla tax bi nga xamante ni ñoom yaa nday mu sëñ Fallou ñoo nekk foofu di ci woo ki nga xamante ni moo di soxna miis nekk fële ci diwaanu Espagne maa ngi woo képp koo xamante ni doomu aadama nga moo xam nga nekk ci biir réew mi moo xam nga nekk ci bitim réew xam leen ni soxna jaara mi ngi leen ni tàllal loxo ci tànkam bii ngir ñu ànd sauver ko te jëmm yàlla rek tax dañu koy bàyyi mu dellu fële ci diwaanu Mboro ñu dawal vidéo bi xaar jaamu yàlla jàppal lañu ci te yàlla rek tax waaye bala ma am lu ma neex dëgg gis jaamu yàlla bu ma ne bàyyi Sowro jël naa xale bi en charge te yàlla rek tax yàlla am na ko mën na ko yàlla nañu ko bur yàlla defal maa ngi sàkku ci képp ku seetaan vidéo bi lu mu la fekkee bu ci kenn xeeb sa ñaar dërëm waaye bu ci kenn yéem sa million ku ne xam na ni opération cher na metti na nañu ànd jàppale ki nga xamante ni moo di soxna jaara te yàlla rek tax ginnaaw yàlla yéen la yaakaar moom soxna jaara ba tax mu jóge ko Mboro ñëw fii ñu ngi leen di xaar ci numéro boobu ci bànn écran bi lépp lu ci waay def te yàlla rek tax nañu ànd sauver ki nga xamante ni moo di soxna jaara bi jóge Mboro ñu taxawu ko comme ni ñu taxawoo malaat